بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عرفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم كمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفضل وما أدراك ما يوم الفضل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين barakallahu fiik suñu boroom mu ne bismillahi rahmaani rahim wal mursalaati urfa ña nga xam ne dañ leen a yónni ñu tegaloo fal aasifaati asfa ñuy nekk di upp la nga xam ne mooy ak upp wan nashiraati nashra ak ñay tasaare ak tasaare fal faariqaati farqa ak ña nga xam ne ñooy teqale ak teqale fal mulqiyaati zikra ak ña nga xam ne ñooy sànni la nga xam ne mooy waaraate ga uzran aw nuzura mu nekk ngant bu ñuy joxe wala xuppaate bu ñuy xuppa innama tuucaduuna la waaqia li ñu leen dig day luy tabbi lay doon fa ida nujuumu tumisat heure boo xamee ni biddiw ya maasale nañ ko wa ida samaau furijat asamaan ñu daal di koy xar wa ida aljibaalu nusifat la nga xam ne mooy montagne ya ñu mokkal ko ba maaseeg suuf wa ida rusulu uqitat waxtu wi nga xam ne yonent ya dajale nañ leen ci seen rendez-vous ba li ay yawmin ujjilat ñeel ban bis lañ delloo loolu lépp li yawmil fasl mooy bisu atte ba wa ma adraaka ma yawmul fasl mënu lay xamal bisu atte boobee waylun yawma idin lil mukazzibin alkaa nga ñeel ne keroog weddikat ya alam nuhlikil awwalin ma ndax du ñun yàlla ñoo alagoon ñu fi jiitu woon summa nutbi'uhumul axirin gannaaw ba ñu toftale leen ña nga xam ne ñooy ñu mujj ñi kazalika nafaalu bil mujrimin naka nii rek day lañuy def ñeel kàccoor def ko te bakkaar ya waylun yawma idin lil mukazzibin alkaange ñeel na keroog ñi nga xam ne ñooy weddikat ya ñi ngi noonu mbokk li muy mursala mufassiroon yi am nañu wuute ci kaddu yu jëkk yi ndax ay malaaka la yàllay wax wala ay ngelaw la yàllay wax doonte ne lu bari ci ñoom ñi ngi koy delloo la nga xam ne moom mooy ngelaw ya suñu borom mu ni mi ngi waat ci ngelaw yooyu nga xam ni yàlla li yónni ñu tegaloo te mbokk ngelaw benn bokku ci ak sa morom puissance ngelaw yi jóge penku yi jóge sowu yii nekk ay cyclone yii nekk ay wuranga yii nekk ay tempête yooyu suñu borom moo leen di yónni nam ko soobe ci lam ko soobe moo tax mu ne bu ñu ñëwee dañuy ëpp ak ëpp te mooy puissance ba nga xam ne moom la ñuy uppee léeg-léeg nga dégg ñu ne ngelaw la bu jaar Saalum wala bu jaar feneen yàq na fa téeméeri nekk amma am na yuy dem ay côté ay Philippines ak ay Amérique ak yooyu yooyu moom yàlla def na suñ dëkk yi sax du fi jaar ne bu fi jaaroon moom benn dëkk kaw lootul taxaw ci àll bi kon asifaati asfa ci ëpp ëpp gu tar ak it buñ ñëwee di tasaare ak tasaare mooy tasaari niir yi ci kaw asamaan taw façon bi yàlla nga dégg ñu ne Saint-Louis taw na Thiès taw na Kaolack taw na ila axiri noonu it lay tasaaree la soob yàlla ci tuur tuur yi mu dem ci garab yi gannaaw ba it noonu lay indee li nga xam ne mooy alfaariqaati farqa lu bari ci borom xam-xam yi moom ñu ni fii moom malaaka yi la yàlla lay wax wax naa la même ay ci kaw am nañu koy askanale malaaka yi mooy wal mooy wal mursalaat ba baa ngay si fii amma fal faariqaati farqa mooy malaaka yi yàlla yónni ñuy teqale diggante dëgg ak fen di indi alfurqaan mooy téere yàlla yi di sànni waaraate ga ca ka neex yàlla ci ay jaamam muy yonente ya loolee nekk benn ngànt bu jullit mën a utiliser ba dellu gannaaw ci ngërëmal yàlla waaye nekk xuppaate bu ñuy xupp ngir yéeféer yi ba ëllëg du ñu am lay ci kanamu yàlla lii lépp bi ci sunu borom waatee nag mën a xam leen ni li ñu leen di tëkkoo day loolu luy ñëw la ca mbokk suñu borom yàlla ñu ngi dig ay jaamam luy nar a ñëw yowmal qiyaama muy wax nag loolu kañ lay doon bis la boo xam ne bindiw yi nekk ay milliards ngeen di ko seen yépp dañ koy fay asamaan ñu xotti ko la ci nekkoon lépp tuuru montagne yi ñu mokkal ko lépp nekk poussière yonent yi ñu dëkkal leen ñoog seeni xeet suñu borom mu ne loolu lépp mooy bisu atte ba lañ koy delloo lan moo lay xamal bisu atte boobee ñàngaay ba tax na suñu borom ni alkaa nga ñel ne weddikat ya di loo xam ne suñu borom dana ko baamu fukki yoon ci téeréem bi mooy waylun ci ci saar bi ñu nekk fukki yoon ci saar bi ñu nekk waylun yawma isin lil mukazzibin suñ boroom nee na alkaanga ñeel na weddikat yi te boo demee feneen mutaffifin mu nan mu ni allazina yukazzibuna bi yawmi din mooy ñay weddi bis ba nga xam ne dañ leen ciy fay ñoom ñi ngi weddi xanaa bàyyi wu ñu xel ne ñi fi jëkkoone weddi di seeni maam dama leen a alak gannaaw ba sos ñeneen toppale leen ca ñooñee alak naa xawmu noox alak samut ba ñi ma mujjoon alak muy firawna suñu borom nag ne yéeféer yi de buñ delluwul gannaaw na ma ale ga ñu jëkk ña noonu lay jaare ak ñoom waaye mbokk suñ yeneen ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ñaan suñu borom yàlla da ko ay yàlla yàlla nag ma may sama xeet ak lu ñu mën a def yàlla ba leen alak ni nga xeet ni nga alagool xeet yu jëkk ya suñu borom yàlla may ko loolu nangul ko loolu ba incha allah xeet bi doonte ne yegg nañ foo xam ne fu xeet yu jëkk ya yeggoon rek ñun paase nañ ko waaye nag yonenti boobu nekk yonenti yërmaande garanti la ne xeet bi kenn du ko boole alak léeg-léeg nag suñu borom mën na créer ay fitna fenn ngir avertir nit ñi ñu dellu gannaaw lu mel ni fitna yi nekk ci Syrie fitna yi nekk ci Afghanistan fitna yi nekk ci ba ci Irak léeg-léeg tremblement de terre yi am léeg-léeg xiif yi am yooyu moom pour nit ñi dellu gannaaw la am ma maas la xeet bi loolu moom yàlla du ko def ngir yërmaande gërënte bi yàlla na yàlla fayal ñu ko bismillah
ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا إياكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين barakallahu fiik kon suñu borom mu ni alam naxluqkum min maa'in mahin moo ndax binduma leen ci ndox moo xam ne bu lompañ bu doyee ji la fa ja'alnaahu fi qaraarin matin ñu def ko ci saxuwaay boo xam ne bu ñu dalal la ila qadarin ma'lum ba ci dig boo xam ne ah ba ci do ci do- dogal boo xam ne bu ñu xam la fa qadar na ñun yàlla ñoo dogal fa ni'mal qadiruun ñu ak a baax ki nga xam ne moo doon dogal waylun yawma idin lil mukazzibi alkaana ñeel ne keroog ña nga xam ne dañ doon weddi ay weddikat ya alam naj'alil arda kifaata ndax defuma suuf mu nekk lu leen ëmb ahyaa am wa amwaata ñay dund ak ña dee ñépp wa ja'alna fiha rawasiya shamikhatin ma def ci ay montagne yoo xam ne montagne yu rëy lañu ñu ngi noonu yu màgg wa asqaynaakum ma'an furata ma nandal leen ndox moo xam ne ndox bu neex la waylun yawma idhin lil mukazzibin alkaa nga ñel ne keroog ñi nga xam ne ay weddikat lañu ay yéen intaliqu ila ma kuntum bihi tukazzibuun dox leen ngeen dem ca la nga xam ne yéen a ngi ko doon wedde muy sawara intaliqu ila zillin zi salaasi shu'ab daw leen ngeen jëm ci ker goo xam ne ma nga ànd ak ñetti wàll ñetti pàcc laa zalilin nekkul nag luy keral wala yughni min al-lahab nekkul lu leen di fegal ca takk-takk sawara innaha tarmi bi shararin kal qasr ma ngay sànni ci ay ferñeent yu tol nay château ka annahu jimalatun sufr ñu mel ni ay giléem yoo xam ne nii giléem yu jaune la waylun yawma idhin lil mukazzibin alkaange ñeen na ña nga xam ni dañoo nekkoon di weddi mbokk suñu boroom li ngeen ko waxee saar yi màkka yëpp mi ngi nekkoon di saxal al ba's te mooy dekkal gi yàllay dekkal ak jaamam mu ne ay yéen doomu aadama yi maa leen bind ci ndox moo xam ni ndox mu doye ji la boroomam bi ko génne sax fu mu ko tax mu bëgg koo gaaw fomp yow doomu aadama loolay sa cosaan lool it day wane ne yàlla mi la jële ci ndox moomu def la nga nekk doomu aadama jëlalaat la ci poussière def la nga nekk doomu aadama loolu tewu ko ñaari biir dañ ci dégg ne mbokk doomu aadama rëy waru ko doomu aadama sa cosaan ndox bu doyee di la sa mujjug àdduna buñ la bàyyee fii rek ñetti fan une semaine ku la xool rek du mooyu am déet loolu tax boo dee say mbokk gaaw jéem laa suul yi kon doomu aadama doo dara sa teddaange mi ngi nekk ci nga dégg la sa borom waaye ak rëy warul doomu aadama yaa ngi jóge min maa in mahin borom boobu subhanahu wa taala nag ne ñoo ko jël loolee ndox ma mi def ko ci qaraar ca biiru yaayam saxal ko fa ak saxal ba ci dig bu ñu xam loolee mën na nekk six mois doomu aadama génn doon nit ku normal six mois su neexee yàlla sept mois huit neuf dix léeg-léeg exceptionnellement deux ans ku mel imaamu Malik rahimahullah nee na dëkk naag ay dëkkandoo ñu am ñetti doom yoo xam ne bu nekk ñeenti at la ko soxna si ëmb te yàlla muy faalu li ma yurit yàlla mooy def lu ko nekk borom boobu nag nee na ñun ñoo dogal ca ak a baax ki doon dogal te wallahi doomu aadama buñ la waxee ni mu compliqué da ci nekk ci ay milliards de cellules organisées loolee da ngay gis ne kenn mënu la ko wax dañ naan cerveau doomu aadama rek am na plus de vingt cinq milliards de connexions loolu mbokk jéggi na dayoo kon suñu borom mu ne man mu doon dogal ak a baax ki doon dogal moo tax mu ne alkaange ñeel na weddikat yooyu bokk na ci lu mu fassiroon yi di wax pourquoi suñu borom di baamu kaddu gi alkaange ñeel na leen mbokk ñu ne yéeféer kemtalaayam lam def ci kéeféer noonu lu mbugalam di toll yowmal qiyaama loo weddi mbugalam mi ngi lay xaar jëf bu bon boo def mbugalam mi ngi lay xaar loolu tax waa àjjana seeni daraja yemul naka noonu waa sawara seeni daraja yemul seeni mbugal mi ngi gën a tare ca nañ gën a weddee mi ngi gën a tare ca nañ gën a moyee loolu tax suñu borom di baamta loolu borom bi subhanahu wa taala ne bu ngeen weddee ba tey xanaa gis leen suuf maa ko def mu ëmb leen ñiy dund ak ñii dee yépp mbokk ñaate milliards ci doomu aadama la yàlla denc ci biir suuf yàlla rek moo ko xam ñu ngi noonu loolu di kaw ci fi yàlla tey ji di ngay gis soo demoon armée yu mel ne armée yu Pikine yi masalan nga xam ne ba mu feesee kenn xamul da ngay gis ku naan la bàmmeel bii suul na fi ñetti nit ñeenti nit juróomi nit buñ ko suulee balaa am un an suuf lekk ba mu jeex tàkk nga ñëw suul keneen suuf lekk ba mu jeex tàkk waaye mbokk loolu mu lekk ba mu jeex yàlla mi ngi koy denc ci biir suuf am déet naalamu ma tanqusul ardu minhum lu ci suuf jël yàlla xam na ko ëllëg ñëpp lay génnandoo borom boobu subhanahu wa taala mu ne xanaa gisu leen montagne yi ma ci def montagne yoo xam ne dañ mat ay dix kilomètres ay lu kenn xamul guddaay des fois des kilomètres moom tamit ñu yàlla may ñu dem màkk gis nañ loolu suñu borom mu ne maa leen may ngeen naan ndox boo xam ni ndox bu neex la ma an furata ndox bu neex nga di ko naan te mbokk ndox neex na lool mu ngi noonu borom bi subhanahu wa taala mu ne yéefar yi ëllëg daal ngeen wax dem leen ci li ngeen doon weddi dem leen ci sawara boo xam ne dañu leen génneel ñetti pàcc pàcc yooyu suñ ko gisee day mel ne ay ker waaye suñu borom mu ne du ker li fume la boo xam ne nii waa sawara dañ ko jàpp ay ker la waaye buñ ci duggee nekkatee ammoniac la boo xam ne bu leen sëfakaloo fatt la nga xam ni moom muy seen dënn ya ca du tee mbugulum tàkk-tàkk ba fekk leen fa borom bi subhanahu wa taala di wax ne sawara boobu ñu seen ak la ci yàlla def ci fiine yu tar yooyu nee na léeg-léeg ferñeent génn ci ferñeent xale yi léegi daan di ko boyal sax bëreetul ci ñoom waaye booy boyal sa forna am na étincelle yu génn loolu mooy ferñeent suñu borom nee na sawara ferñeent yi fay génne day mel na château bu mag ferñeent bu génn day mel na ay château bokk loolu kon yàlla moo xam nee na it noonu la ñuy tegaloo mel ni ay gaddu giléem la ñuy tegaloo boo demoon ci côté Mauritanie lañuy gis benn waay bu jiital téeméeri giléem nee na nag noonu la ferñeent yi tegaloo ca la nga xam ne nii mooy waa sawar nekk ñoom ca biir ñu leen di mbugal suñu borom mu ne alkaa nga ñel na ña nga xam ne mooy weddikat ya ñu ngi noonu Cheikh Ousmane هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيرتدون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفضل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيد هم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركبوا لا يركبون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون
jazakumullahu xayra sunu borom subhanahu wa taala mu ne haada yawmu la yantiquun lii day mooy bis boo xam ne ñoom duñu fa wax wala yuzanu lahum fa yactaziruun kenn du leen jox ndigal ñuy nekk di joxe ay ngant waylun yawma idin lil mukazibin haada yawmu alfasl lii de mooy bisu teqalee ba jamaanaakum wal awwalin dajale nañ leen yéen ak ñi leen fi jiitu woon fa in kaana lakum kaydun fakiidoon su dee ne daf leen ñeel la nga xam ne mooy pexe ngalla waay pexe leen waylun yawma idin lil mukazibin inna almuttaqina fi zilalin wa uyun ña ragaloon yàlla day ña nga ca kër ya ak déeg ya wa fawaakiha mimma yashtahuun ak fruit ca lañ gënoon a xemmem kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun lekk leen ca naan num gën a yaatoo ngiree la nga xam ne nekkoon ngeen di ko jëf inna kadhalika najzi almuhsinin naka ñun day nii rek la ñuy faye ñu doon rafetal waylun yawma idhin lilmukazzibin kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun lekk leen ca naan lu tuuti rek nag yéen ñi nga xam ne da ngeen nekk ay kaccoor def ko ci bakkaar waylun yawma idin lil mukazzibin wa ida qiila lahum irka'u la yarka'un fu ñu leen masal wax rukkoo leen du ñu nangoo rukkoo waylun yawma idin lil mukazzibin alkaanga ñeel na bi si keroog ñi nga xam ne ay weddikat lañu fa bi ay xadisin ba'dahu yu'minuun mu ana ci ban wax gannaaw wax ji la doomu aadama yi di gëmati ñu ngi noonu bokk suñu borom mu ni waa sawara lii day bis la boo xam ni duñu fa wax te kenn du leen jox ndigal ñuy joxe seeni ngànt mbokk bisu penc ci yéeféer mi ngi durer cinquante mille ans looloo tax ay étape la ci ay étape am na ay étape yoo xam ne yéeféer ya dañ fa wax suñu borom nett nañu ko ci téeréem bi lu bari mi ngi noonu yéefiri bu ñu gisee seen bokkaalkat yi qaalu rabbana haula shurakauna ila axiri ila axiri borom bi nag am na étape yoo xam ne moom day tëj seeni gémmiñ kenn du wax kenn du joxe ngant suñu borom nag daal di ne lii mooy bisu teqalee bi dajale naa leen yéen ak ñi leen fi jiitu woon mbokk àllaaxira boo toogee di ko imaginer dana doy war lool maam aadama dina ñëw ak génération yi nekk ci gannaawam ba ba àdduna di tukki yàlla dajale ñépp dajale mboolem li fi mas a jaar ci ay ñee ki gaynde ki gaana ki yépp yàlla lépp lay dajale teqale seen diggante xatta kii di abi darda nee na dama ànd ak yonent bi alayhi salaam wala abi zar ñaari kuy di mbëkkante mu ne ma ndax xam nga ni luñ jote mu ne ko ah xawma ko de mu ne yàlla de xam na ko te yowmal qiyaama dana leen àtte nga noonu yàlla dana àtte it doomu aadama yi ak bàyyuma yi waa ji yor aw fasam bañ koo jox aqam ki yor ay juróom bañ leen jox seen aq yooyu yépp suñu borom dana leen atte yowmal qiyaama comme ni nga xamee ne nii noonu la suñu borom waxee yëpp ki yor ak juróom di ci génne zakat jur ga yàlla da koy dekkal mu xàmmee sama nag yaa ngi sama gileem yaa ngi yàlla jël seen wey def ko ba mu raw ay lañ set ñu daal di koy tëral jur ga di jaabante ci kawam ñu ngi noonu loolu kon ma yomul fas borom boobu subhanahu wa taala nag ni tey ku am pexe ne pexe la chaque pexe du fa am ca la wëlbatikoo nag ca gaa yu ragal yàlla ya mu ne ñi ragaloon yàlla day ñu ngi ci kër ya ak déeg ya ak la nga xam ne mooy la ñu xemmeem ci fruit yi ñu leen di servir suñu borom ne lekk leen naan leen nun gën a yaatoo ngiree lii yéen yéen a ko fàgg woon liggéey ko te it mbokk lekkuk àdduna bokkul ak lekkuk alaxira réception boo fa demoon soo lekkee lekk lekk bu yàgg rek biir bi day fees mënoo ci dara amma alaxira nu la neex ngay lekke biir bu di fees ba mukk heure boo soxlaa leneen soo géexee la nga jëkkoon lekk dem nga lekkaat nu mu la neexee borom bi nag ne nii lay fay ñi doon rafetal rafetal mbokk julit mooy foo toll di bàyyi xel sa borom ne mi ngi lay gis rafetal mooy jaamu yàlla bi nga def ko ci yàlla tax ca dëppale ko ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu ci manqué rek rafetal amatu ci mooy liñ tuddi ihsaan borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne yéen nag ci àdduna yéen it lekk leen naan leen lu néew ca mbokk wallahi milliardaire bi dundoon ci kaw suuf mille ans yoo xam ni musul feebar musul am problème mi ngi noos di noos pendant mille ans su demee àllaaxira day gis ne ndekete moom lu néew la noos moo tax suñu borom ne waa sawara buñ leen dekkale dañuy jàpp ne dund ñu woon ci suuf illa saatan min nahar dañ jàpp une heure de temps la ñu def ci kaw suuf mu ngi noonu lekk leen naan leen tuuti yéen ñi nga xam ne ay toñkat yéen suñu borom mu ne alkaange moo leen di xaar nekkoon nañu bi nekkee ci kaw suuf buñ leen waxee rukkoo leen du ñu rukkoo te mbokk rukkoo mooy mandargaal julli mu tax yàlla waxoon maryaama warka i ma arrakiin waxoon bani israil warka u ma arrakiin ca mooy buñ leen waxee julli leen duñ julli mbokk mandar ngay dem safaraa ngi noonu ngal la way jullit xamal ne ku dul julli bokkul ci diinul islaam da ngay gis doomu aadama bu nekk fii doxandéem bu dee sax imaam yi dañuy ñëw naan waaw ndax am na ku ko mës a gis mu julli kon mbokk ngal la way ni ñuy julli ca respecté suñuy julli ku dul julli du jullit ca boo dee sawara nga jëm ba tax suñu borom ne bu ñu leen waxee rukkoo leen duñu rukkoo suñu borom ne alkaanga ñen la ñu doon weddi mu ne nag ana ban wax gannaaw wax bi la nit ñi di gëm suñu borom mi ngi nii leeralal ñu ay aayaam ci téeréem leeral gu neex gu gu gu leer nañ naka doomu aadama mën a sàggane ba benn waay ñëw làng fële woote ne man day ku ku ma gëm da ngay dugg àjjana bilaa nangam loolee nga mën a jàpp di gëm loolu ca fekk lam lay woo dafa safaanoog lislaam loolu moo tax mu ne ana ban wax gannaaw waxi yàlla la doomu aadama di mën a gëmaat mbokk saar bi di mursalaat kii di umul fadl di yaay ibnu abbas dégg na ibnu abbas di ko jàng mu ne koy suma doom fàttali nga ma day njàngum yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam lii laa mujj dégg mu jàng ko ci timis gi ma mujj a jullee ci gannaawam loolu muy wane ne kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xatta timis daanaka jàng la nga xam ne mooy almursalaat di bokk ci saar yi nga xam ne saar yu tiitlu la ñu ngi ñaan suñu borom jalla wa ala yal nañu yàlla may jàmmi àdduna may ñu jàmmi alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ala kulli xaal ki julli ajjuma ba pare yoonal nañ ci moom mu def naafila su ko neexee naafila def ko ca jàkka ja su ko neexee naafila mu def ko ca kër ya naafila yooyu mi ngi commencé ci ñaari rakka wala ñeenti rakka am na riwaaye yuy wax ni ba muy julli ca jàkka ja dañuy def ñeent bu dee da ngay julli sa kër nga def ñaar almuhim ñaar la ñeent la même ña koy tënk di boole ñaari riwaay yépp di julli ñaar fii julli ñeent fii muy juróom benn loo ci def baax na diggante gannaaw ajjuma daal loo ci def ci naafila mi ngi noonu insha allah baax na waaw ah tuufaay nit ki tuufu tuufaay du yàq koor lu dul ne danga caa def dose bu ëpp boo xam ne yëngale dem na ba yegg sa put su boobaa it danga ko war a xaax tindu ko génne ko soo ragalee ne nag léeg kat ndox ma dem na ba yegg su boobaa moom moog li nga jaarale sa gémmiñ moo yem waaye daal boo yemee ci tuufi bi kese loolee moom nekkul di yàqu sa koor mi ngi noonu wallahu alam naam bismillah imam boo xamante ne dafa jiw gannaaw ba mu war a jóg mu toog nag subhanallah mu ba xam su paree ci ba jóge loolu nekk
bu dee imam bi dafa toog ñu ne ko subhanallah mu jóg tànk taayewul loolee amul lu mu fay sujjóot bal toogaay boobu toogaay bu ñu yoonal la te kiy julli ci gannaaw kiy jiite mbooloo mun te nekk koo xam ne nii kuy nekk di taaya su ko defee bu dee ne imam bi même du def jalsatul istiraaha boobu nga xam ne lu ñu sunnaal la mooy boo jógee saraka ñaareel toogal bala ngay jóg même bu dee loolu du sunnaam jëmmi toogaay jooju ma toog rek ca taayu fa buñ ko nee subhanallah it loolu day jóg jarul sujud wallahu aalam naam bismillah ndax tax na ginnaaw aaya sura bi ñuy naan amatu billahi wa bi ayati ci naa fi la war la ci jàng
ala kulli xaal loolu gisuluma ko dalil gisuluma ko dalil comme la nga xamee ne nii it nekkul lu dëgër suratul qiyaama buñ ko jàngee ba pare ngay wax naan bala wala suratul tiin yooyu yëpp ay riwaayu ñëw na ca mais luy riwaayu yu ci wér loole moom gisuluma ko benn dalil wallahu subhanahu wa taala alam naam ala kulli xaal bismillah naam waaleykum salaam
maanaam maanaam
mu ne naafila yi nga xam ne dañuy dañuy sax ci géej waaw
ndax naafila yi dañu war a def wala duñu ko war a def ci booy booy natee naafila yi.
pour ñaari rakka yi nga xam ne dañ koy def gannaaw gee loole ak julli la spécial ku bokkul ak la nga xamee ne nii moom mooy tarawix yi léeg-léeg jàkka yi xataay bi muy xat mooy tax de permettre ñuy def temps ba ku nekk di def say na say tasbix na mu yombe ci yow gannaaw ba ci def say ñaari rakka gannaaw ba ñu doog a wote tarawix loolu moo tax ba lu ci bëri dañuy julli teg ci tarawix yi waaye ñaari rakk yooyu foo ko julli avant fajar de jot day bokk ci ñaari rakk yi nga xam ne ñaari rakk la yu bokk ci rawaatib yi ñëw après gay li nga noonu wallahu subhanahu wa taala alam ala kulli xaal kon mbokk ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala nangul ñu te defal ñu tawfiq fi dunia wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi